lépp yéen doomu aadama ay xel yoo xam ne mën ngeen ko jëfandikoo ngir dégg alquran ak sunna waaye yebalal leen ab yonent boo xam ne it day jàngale loolu ngir ngeen mën a xam lii lu mu doon kon ndekete lu ci sa xalaat nga ne kii ne ni man de loolu nii laa ko gise kee ne ko ah man de loolu nii laa ko gise kee ne ko nii laa ko gise léeg-léeg da ngay dégg loo xam ne ci bunt yi gën a xóot ci tawxiid nga xam ne nit ki mën na cee suruxe boroomi xam-xam sax dañ ciy surux nga dégg jëmm ju ko ubbi ci rajo du leen laaj wax leen lu ngeen ci xam nit ñi di téléphoné kii ne ah loolu nii laa ko gisee kenn ko ah man de gisee ma ko noonu nii laa ko gisee kooku day ubbil doomu aadama yi werante ci diine yàlla ji ci lu àndut ak xam-xam werante ci diine yàlla ci lu àndut ak xam-xam kooku lor ju rëy rëy rëy lay indi ci diine léeg-léeg nga gis ñoo xam ne nekkuñu sax ci lislaam waaye da gis ci ñoom léeg-léeg xeeti mandute yu rafet tubaab yi am na ci ñoo xam ne dañ lay wax ne surtout ci américain dañ lay wax ne ñaari mbir ki ci sañ wax mooy koo xam ne daf caa xóot mais ñoom suñ ci xóotu duñ ci waxtaan bi benn bi mooy lan mooy politique beneen bi ci des mooy lan ñu ne mooy wàllu diine ñoom bu dee wàllu diine dañoo gëm ne da ngaa war a dellu ci borom xam-xam ba door ci sañ a wax borom xam-xam rek ci moom sañ a toog ci mbooloo di wax ak ñoom ci diine waaye ku jàngul warta sañ loolu bu dee ci wàllu politique itam xalaat bu mel noonu lañ ci yow waaye léegi da léeg-léeg da nga gis jullit yi l'islam moom pour ñoom ñëpp xam nañ ko ñu bari pare nañ pour loo leen laajoon ñoom pare jekk nañ pour tontu la ci diine loolu loolu mbir mi demewul noonu fooyee diine lu yaatoo yaatu bokk na ci yi nga xam ne boo dee jàng di gën a xam da ngay gën a ragal ku la ci gën a néew xam-xam moo la gën a dëru fit waaye ki xam xam lii muy wax lu mu doon xam fan la àgg kooku dana ragal lii mu lii mu jublu parce que xam na ne géej a ngi goo xam ne wax ci responsabilité bu rëy la boo xam ne ku amul xam-xam soo ciy wax man ngay wax njaaxum goo xam ne te fekk yëguloo ne yow li ngay wax njaaxum la njaaxum googu ngay wax ginnaaw da ngay nuru borom xam-xam ndax benn kaalawu nga ñu ne kilifa la wala tudde nga sa bopp wala nit ñi tudde la ustaas ñu ne boroom borom xam-xam la nga faranklaayu di wax ci diine nit ñi loolu dañ koy jëlee ci yow di ko yóbbu loolu ñuy jël di ko yóbbu suñ ko su wérut su dul xam-xam responsabilité ba yow yaa ko gàtt moo tax inna sama wal inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula sa dégg bi ak sa gis bi ak sa xol bi yëpp responsabilité bi ci am wa maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kàddu yi ngay wax benn bu ci nekk am nga ci responsabilité boo xam ne dañ la koy laaj ëllëg kon lii qaayida bi muy règle bi nga xam ne jullit bi moom la jëfal war a jëfe mooy lu mu xam na wax lu mu xamul na tey la xaw ma mu jeex loolu xaw ma ko danaa ko seet waaye néew na nga dégg ci ñi ubbi jataay yi xam-xam te fekk sax seeni àlluwa léeg-léeg yu gàtt lay doon néew na ngay dégg ñu ne xaw ma li ko waral mooy lu bari ci nit ñi <coughs> ñooñu dañoo dem ba jox leen benn yëg-yëg boo xam ne baaxul yëg-yëg bi mooy jàpp nañ ne su keenee xaw ma rek mooy li muy tekki mooy kon xamul dara nekkit fekk mbir ma du noonu mbir ma mooy géej goo xam ne diisu ko peeg da nga cay xam tuuti lu bare bare bari réer réer la borom bi tabaraka wa taala bu dee wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul rabbi zidni ilma ñaanal yàlla dolli la xam-xam koo xam ne dañ koy wax yu yorul alluwa di jàng wala ab téere waaye yàlla daf ko koy sol ba noppi ne ko ñaanal yàlla dolli la xam-xam waxaat ne wa ma utitu min al ilmi illa qalila xam-xam day tuuti lañ leen ci jox xam-xam de yàlla nee na tuuti lañ leen ci jox tuuti jooju yéen ñëpp a ko bokk maanaam tuuti lañ leen wàcceel pour ngeen bokk ko yéen ñëpp kon kenn mënu cee bari le dëgg la nag ma des na ci ëppalante kii am tuuti ju ëpp kii am tuuti ju gën a ndaw kii am tuuti ju gën a ndaw waaye nag géeju ba peeg xam-xam bi nga xam ne dañuy wax ne diw moom salma la mooy laajal lu la soob loo laaj rek mu tontu kooku ci danger yi nga xam ne mi ngi am ci jotaay yi xam-xam yi mi ngi am ci rajo yi mi ngi am feneen di am feneen yooyu ci xeet wi war a bàyyi xel ci la bokk kon fi yàlla jëfandikoo waat kon baatu maqt boobu mooy wax ci diine yàlla ji werante ci te fekk tegoo ko ci xam-xam moo tax daf ne الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ñi nga xam ne ñi ngi werante ci alxuraan yàlla ji ci lu dul ñu teg ko ci xam-xam nee na loolu maqt bu rëy rëy rëy la sànja bu rëy rëy la maanaam bàkkaar bu rëy rëy la kon gannaaw boo xam ne jëfandikoo na ko ci kéefër jëfandikoo waat na baat bi ci werante ci diine yàlla ji te fekk tegu ci xam-xam ñetteel ba moo di nit ci papam faatu mu takk jabar o oh, beneen musiba ngoo faatu mu ñëw takk jabaram wala papam fase jabaram mu dem takk ko lool defe naa tuutiwul lu rëy rëy la ah nit ñi nag ci seen jamonoy ceddo dañ ko daan bi borom bi tabaraka wa taala ñëwee araamal ko tudde ko maqt tudde ko maqt mu ne wala tankixu ma nakaxa aabaukum min annisaai illa ma salaf innahu kaana faaxishatan wa maqtan wa saa sabila bu ñi nga xam ne seeni baay dañ leen a takkoon nee naa loolu day bakkaar bu ñaaw la loolu day maqt la maanaam sànja la kon xoolal li ma taquluuna ma la tafaluuna kabura maqtan inda allahi xoola yim tollool ngir nga xam ne xam te jëfewoo kon lu rëy la yim tollool wala yi nga xam ne ñoom lañ tudde maqt ci alquran kon mooy kéefër mooy werante ci diine yàlla ci ludul xam-xam mooy takk sa soxnas baay kon yooyu dëgg lañu fi ci kon ndekete wax ci diine yi borom bi tabaraka wa taala wax joo xam ne yow da ngaa jël engagement ba te àndul ak jëf kon ci classe bu réyee noonu foofu la toll gaa nekkul nag kéefër mën naa bañ a àgg ci kéefër waaye mën naa àggit nag ci kéefër ndax bunt bu yaatu la su fekkee engagement bi mu jëfandikoo woon ci tawxid boobu la jëfandikoo wut maanaam lim ne woon moom jenn yàlla la fas yéene jaamu dem na bay jaamu nag ñaari yàlla wala mu fas ne am na keneen ku man jagle yàlla yi am na jeneen mbindeef boo xam ne bu ko man la su boobaa kooka euh, mbir ma da koy yóbbu kéefër wala yaasu billah kon méthode bi nga xam ne moom la lislaam jàngale moo di jullit bi moo xam jullit bu ndaw la moo xam mag la moo xam ku bari xam-xam moo xam ku néew xam-xam mu am ci xam-xam nu mën a toll wante nim mel ci bitti dafa war a doon loo xam ne day wane na mel ca biir loolu mooy melokaanu jullit la ca biiram muy pas-pas bi mu wane ne moom la gëm wax ko ba nit ñi dégg ko ashhadu an la ilaha illa allah wa o anna muhammadan rasulullah na fexe ba li muy dund ci kanam nit ñi bu am am contradiction ak loolu na fexe ba li mu gis mu di ko dund ci wàllu pas-pas lépp tawxid la ba jeex bi wax waxee ne seede ne amul benn ku ñuy roy ku dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na fexe ba ci jaamu yàlla buñ ko xoolee gis ko mu dëppoo ak jaamu yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon jullitu dëgg-dëgg mooy koo xam ne waxam ak jëfam wuute wuñ am na ay bayit yu am solo yoo xam ne ku ñuy wax abul aswad ad-du'ali moo ko wax ci jëmbale ko ci koo ne dafay woote ci yiw te fekk ci boppam day woote ci yiw te fekk tàmbalewul ci boppam mu ne yaa ayuha rajulu almuallimu gayrahu halla li nafsika kaana da taalimu yow mi nga xam ne da ngaa jóg di jàngal keneen ah mbaa jàngal nga sa bopp ba noppi tasifu dawaa lilistiqaami wa lidana kay ma yasixa bihi wa anta saqimu mbaadu da ngay ñëw di war saafara yi nangam nangam koy faj nangam a koy faj te fekk yow da ngaa feebar te fajoo sa bopp nee na ibda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa in intahat anhu ci sa bakkan mbewte mi ci nekk ak bànneex yi ak dëng-dëng yi ak bon bon yi sa bakkan boobu ba mu jaar ci mustaqim su loolu amee nee la kooku yow léegi am docteur nga kooku sañ ngaa faj dina faj nga sa bopp bu wér nga kon boo ñëwee ci keneen ne ko fajkat laa kooku mu gëm ko waaye laa tanha an xuluqin wa tatiya mislahu aarun alayka ida faalta azim nee na bul tere benn jikko ngay wax ne nit ñi nangam baaxul fekk jikko boobu yaa ngi koy def mais lool soo ko defee gàcce la de gàcce la bu màgg jullit bi taxaw ne nangam baaxul ba noppi ñu wëlbati ko gis ko mu nekk ci biir loolu wala mu ne nangam baax na ba noppi gisuñu ko muy jéem loolu moo tax salafu saalix dañ daan nangoo sonn léeg-léeg sax ñàkk a mën a jëfee lu baax lii dana tax ñu daan yeexe yeexe digle ko léeg-léeg ñu daan denc lu baax bañ koo digle fekk la ko waral mooy dañ koo mën a gut a jëfe te bëgg nañ lu ñuy digle lu nekk rek fekk ñu ngi koy jëfe dañu nekk borom xam-xam bu mag koo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo defaloon may ci xutba xutba ajjuma su xutba bunt bu mu wax rek bunt bu mu xutba rek jeexee bi day daal feeñ ci xeet yi askan wi yépp dañuy daal di jariñu képp ku ko teewoon rek jariñu ci <coughs> am benn jaam boo xam ne njaam nga xam naa sonal na ko mu ñëw ci moom ne ko man dama bëggoon nga xutba ci wàllu goreel jaam dama bëggoon nga xutba ci wàllu goreel jaam parce que dama bëgg bu ci xutba ndax yàlla ñu goreel ko mu ne ko baax na dégg naa ko toog lu yàgg xutba wu ci mu del ci fàttali ko mu ne ko fàttewu ma ko de ba am benn bis rek mu ñëw yéeg ci minbar bi rek daal di tàmbali xutba ci wàllu goreel bi mu àggee xutba bi àggee rek ñu ne nangami junni jaam lañ goreel ci bis boobu yàlla dogal jaam boobu bokk ci ñiñ goreel bi ko ki ko moomoon goreelee nag mu daal di jóg dem kër imaam ne ko waaye yeex nga li ma la waxoon ba ma la ko dalee wax ba léegi booba ni mu yàggee boo ko teeloon def ba tey libéré woon nañ ma bu yàgg mu ne ko li taxoon xutba wu ma ci woon moo di boobu ba léegi maa ngi dajalaatu ngir bëgg am loo xam ne danaa ko mën a goreele ab jaam man su ma ko goreelee ba àggal la bi nga xam ne jëfe naa loolu ma door a mën a taxaw ci kaw mbooloo mi ngir soññee ci ngir ñu jëfe ko kon ñooñu ni ñu doon xalaate moo di jëf ak wax dañoo war a taqaloo waaye lu bari ci wootekat yi dañuy wax rek ma nga ne dem leen def dem leen def lee baax na naa nga baax na jëf leen nga xool gis na yu baax yañ doon wax lañ doon jàngale ah ñoom gàttañlu nañ ca lool kon kooku mbir la moo xam ne wopp la ci biir aw askan wopp la ci biir ay wootekat yoo xam ne nit ñi li tàmbalee ci ña nekk ca kaw ci wootekat ya ba ci ñi ci suuf kenn bu nekk war ngaa jël sa bopp xalaataat ci wet googu say manki manki ndax kat ñépp ci ami manki manki ci sama bopp lay tàmbalee teg ci ña tolloog man ak ña ma féete kaw ak ña ma féete suuf ñëpp li ma seetlu moo di bunt boobu ci doomu aadama yi gën a manqué la ci la bokk li ñuy wax nañ fexe ba di ko jëfe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax xadis boo xam ne xadisu abi hurayra la euh, muslim moo ko génne mooy xadis bu daw yaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne inna awala annaasi yuqda yawma alqiyamati ñi ñuy jëkk a atte bu ëllëgee dafa tudd am mbooloo tudd na ci koo xam ne day jihaad tudd na ci kuy waaye li ci ëpp solo dafa agsi ci koo xam ne dafa jàng xam-xam jàngale ko nee na bu ëllëgee yomal xiyaam ñooñu dañ leen di àtte ci da doon jàng ak di jàngale ci itam da doon jàng alxuraan ak di ko jàngale nee na su boobaa yàlla indi ko teewal fàttali ko xéewal yim ko xéewaloon yépp xéewali woon naa la xam-xam xéewali woon naa la mën a jàng alxuraan neex baat soo jàngee nit ñëpp di jooy soo jàngalee ñëpp ni kii borom xam-xam la nee na xéewal yi borom bi fàttali ko mu fàttaliku ko ah, waaw waaw loolu day am na nee na mu ne ko maada amilta fiha xam-xam boobu nag loo ca jëfe mu ne taallamtu al ilma wa allamtuhu wa qaratu al qurana fiika nee na mu ne dama doon jàng xam-xam di ko jàngale doon jàng alquran it ngir yow xaala kadabta bi tabaraka wa ko waxoo dëgg waxoo dëgg walakinnaka taallamta al ilma li yuqaala innaka aalim da nga doon sàkku xam ngir ñi ne borom xam nga loolu nga ci jublu woon li yuqaala huwa qaari doon jàng alquran ngir ñi ne ku mën a jàng watattiil nee na mu ne ko la ci bëggoon waxoon nañ ko kon fayu nga li muy tekki mooy fayu nga door a ñëw da doon sàkku xam-xam ngir bëggoon ñeneen borom xam-xam la a ah, waxoon nañ ko nee nañ moom borom xam-xam la da doon jàng alxuraan ngir bëgg ñu ne mën naa jàng alxuraan loolu nit ñi waxoon nañ ko ba nga jàngee alxuraan na lu ca des summa amara bihi fa soxiba ala wajhihi xatta ulqiya fi nnaar nee na mu digle ne jàpp leen malaayika yi jàpp ko di ko wat nee na mu ne sànni leen ko ci sawara wa ñu sànni ko sawara wala yaasu billah kon mbira ngoog moo xam ne képp kuy xamlu walla ngay xamle walla ngay jàng alquran wala nga koy jàngale war nga koo bàyyi xel ne mbir mi du xam rek teg ci sa tànk mbir mi du waxi kese rek waaye xam la ak jëfe xam la ak jëfe waaye du xam-xam boo xam ne dañ koy xam rek ngir fuukare woo ko kese xam-xam xadisu usama ibnu zayd buxaari muslim moo ko génne daf ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul yu'ta bi rajuli yawma alqiyamati fa yulqa fi nnaar nee na ëllëg dañuy indi benn waay tabal ko sawara wal iyaadu billah nee na fa tandaliqu aqtaabu batnihi fa yaduuru biha kama yaduuru alximaaru birraha nee na dañ koy tàbbal sawara su ko defee sawara wa di lakk yaram wa ak biir ba muy wëlbatiku ci biir sawara bi nee na su ko defee waa sawara dajaloo ñëw ne ko ah yaa fulaan maa lakk xanaa kiiru diw xanaa kiiru diw sàngam xanaa yow yaa nu doon digal lu baax di nu tere lu bon ba nekkee àdduna di yow yaa daan digle lu baax di tere lu bon nee na mu ne waxu kay mën a de waaye dama leen doon digal lu baax te daw ma ko def dama leen doon tere lu bon fekk maa ngi ko doon def xadis boobu mi ngi ci buxaari ak muslim alhamdulilah kon mbira ngoog moo xam ne jullit bi lam xam lu mu néew néew na fexe ba di ko jëfe xam-xam bi bu mu raw jëf ji loo xam rek jëfe ko sa kem kàttan bu dee lu ñuy bàyyi bàyyi jullit nga doonal jullit loolu mooy wax ju gàtt ci ndax lu dul lool rek lay ñëw mooy naafeq yàlla nañ ci yàlla mosal laa shakka ne xam ba noppi ñàkk koo jëfee rawatina ci boroom xam-xam yi kooku am na lor ju yu bare bari yoo xam ne dana ko lor daawa bi nga xam ne ci lañ nekk muy daawa lislaam ci boppam lor yi danaa ci lim yenn bokk na ci fuqdaanu alxudrati saadiqa alxudwati saadiqa li shabaab al umma wootekat yi su fekkee ne seenu woote ci seen làmmiñ la yem ndaw ñi nga xam ne dañoo jóg ngir yàlla kese ak mbaax wuy si wooteeb lislaam ak sunna ñooñu fan la ñuy roy fan la ñuy roy ci kan lañuy ñuy roy ak lan lañuy royee ci moom wóor na yàlla ne su fekkee ne mbooloo dafa taxaw te fekk ci wax kese kese la taxaw képp ku ci dugg si la ngay royee borom mbooloo moom ci wax nga koy roy waaye du leneen ay kat xeet wi soxla wuñ ko liñ soxla ëpp na loolu liñ soxla mooy ay njiit ci lislaam yoo xam ne ay jëfkat lañ kon lépp loo xam ne waxi kese la foofu nun soxlawul ko lim soxla mooy ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir lislaam wuyi si ko jox ko seen bopp di ay góor wala ñuy ay jigéen ñi nekk ci seen kanam doon seen i njiit di leen jàngal di leen wax yaru yonente bi sallallahu alayhi waalihi wa nañ doon misaal ci seen kanam nga xam ne duñ am problème ci kan lañuy roy lii ñuy wax nii anamu kan moo koy dund buñ xoolee danañ gis ay doomu aadama yu koy dund ci kaw suuf ndax lépp loo xam ne dañ la koy jàngal te musoo koo gis dégg ko day jafe ci yow liñ lay jàngal te mosoo koo gis ngir nga mën koo comprendre dafay jafe soo dikkoon ci koo xam ne xamut lu suukar saf mosu koo mos nga ñëw bëgg koo jàngal ba mu xam lu saf kenn tanewu la ci mën ngay wax ba ëllëg lu nekk nag mën naa nekk ci xelam mu jàpp ne loolu la waaye fekk du doon loola waaye boo jëlee bekk suukar def ci gémmiñ gi ne ko mu ngoog kat loolu doy na jërul jëleen wax ba suukar a ngoog mu jeex kon ki ngay jàngal xam-xam bi di ko melal naan ko nangam a baax nangam a baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nangam jikkoom loolu nangam jikkoom loolu won ko ci kanamam jëmb joo xam ne mi ngi dund loolu mu di ko xool muy def muy def muy bàyyi muy bàyyi muy tagg jëf muy xam ne lii baax na muy wax jëf sàngam baaxul muy xam ne lii baaxul kon jamono yi muy jàng war naa am royukaay bu nekk ci kanamam boo xam ne moom lay roy su loolu amul rek réer mën naa am rawatina nag su fekkee ne ka taxaw ñi war koo roy moom la muy wax ci boppam day juyoo ak jëfam kooku li muy indi ci lor moo ëpp li muy indi ci njariñ parce que la muy jur ci ñay déglu rawatina ci ndaw ñi moo di ah ci ñii kat diine ji ñuy jàngale maanaam théorie rek la waaye amul pratique ndax diw sàngam mi fi wax nangam ak nangam ak nangam gis nañ ko muy def nangam ak nangam ak mu daal di doon musiba mu rëy rëy ci biir daawa bi ak a neexoon ak a neexoon wootekat yi ñu bàyyi xel waxi yonent yàlla Shuayb ba muy wax ak nitam ñu ne leen wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu bëgguma leen bëgguma leen a tere dara ne leen lii baaxul ba ngeen dem ma wuutu leen fa dem di ko jëfe yonent yàlla sooy bi nee na bëggumaa def noonu li ma leen di wax baaxul lu may bàyyi la man moo tax ma ne leen baaxul waaye jubluwu ma ne la nangam baaxul ba nga dem ngir ma bëgg a ñëw bëgg koo jël loolu léeg-léeg mu am moo tax mu teg te ne in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah li ma jublu daal mooy yéwénal ak baaxal waaye nag sama tawfiq borom bi tabaraka wa taala moo ko yor alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib kon lor ji nga xam ne wax ju àndul ak jëf dana ko jëkka lor mooy ndaw ñi ñàkk royukaay su fekkee ne borom xam-xam yi dañuy wax rek waaye jëfewuñ laaj bi mooy kan la ñuy roy mooy buñ gis ku ñu roy ñaareel bi moo di ñi nga xam ne dañuy wax ci turu lislaam te seen wax jooju àndut ak jëf yasudduuna an diinillah wa yaqifuuna xajara asratin amaama duxuli fiihi ñooñu dañuy gàllankoor nit ñi ci lislaam ndax lislaam day lu rafet la fuñ ko jëfee ci wàllu jaamu yàlla danañ xam ne jaamu yàlla bu rafet a ngi fuñ ko jëfee ci wàllu pas-pas xam ne pas-pas bu sell ngi fuñ ko jëfee ci wàllu jikko danañ xam ne jikko yu rafet a ngi <coughs> kon kii woote ci lislaam tey woote ci jëf jëfam mooy ëpp njariñ ki nga xam ne day woote ci wax su wax ñu àndut ak jëf suñ maam yi ba ñuy dugg ci lislaam taarixu woote ci ci Sénégal euh, lu doy waar la moo di du xeex ci jaas yi muy li ñu tudde jihaad moo fi dugal lislaam du itam boroomi xam-xam yu géeju ci xam-xam ñoo ñëw ubbi ay daara toog di jàngale ni <laughs> nit ñi doon boroom xam-xam yu mag déedéet waaye ay commerçant yoo xam ne xam nañ dara ci lislaam jikko woo jikkoy lislaam mu rafet ñi ñëw di jëflanteeg nit ñi ci njaay ak njënd nit ñi rafetlu ko dugg ci lislaam loolu moo dugal lislaam ci suñ gox te nag lu yàgg la buur ba ñuy wax waar jaabi nga xam ne ni ko yàqoo bi di nettalee muy ku doon dund fa ñuy wax sën xaaja nga xam ne ci fuutaak fuuta toor ak fuuta ga ca des yépp ak fuuta jalon foofu yépp noonu lañ ko doon tudde ci jamono ya yàqoo bi di bind ëpp na junniy at waar jaa bi moomu daf laa wax ne ñu ko commerçant yi dikkee di jëflante jëflante gu rafet ga bi mu leen woo ñi ñëw mu laaj leen yéen yéenay ñan ndax dëkk bi ñu ngi leen di waxtaane ñu ngi wax ne nit ki su dee jaayanteeg yéen sax su juumee da ngeen di dem bu ëllëgee ngeen dikk ne ko démb yow nii yaa ko moomoon am delloo ko waaw yéen lu leen jàngal woowu melokaan ñu ne ko ah nun de ay jullit ci lislaam lañ nekk nee nañ buur boobu daf daal li leen wax ne lislaam ci boppam kon moo baax man dugg naa ci te woo naa sama xeet wépp itam ñu dugg ci xeetu li ñuy tudde senegal ci jamono yooyu lañ duggoon ci lislaam la suñu jënd tey kon xam-xam bu bari dugalu leen woon jihaat ak jaas yi tam dugalu leen woon waaye jëflante bu rafet moo leen dugaloon ci lislaam loolu moo tax lislaam toog na ci suñ gox bi lu mat juróom-ñaar téeméeri at gisuñu ku bindub téere maanaam taalif amu fi woon téere yi fi gën a yàgg téere bi fi gën a yàgg tey ci loo xam ne dañ koo bind ci kàllaam ak arab ci koo xam ne dañ koy askane Sénégal mooy Cheikh Omarul Fouti keneen ku ko gën a jëkk bind ci arab bi te lislaam nag loolu mosu ko def fenn maanaam dund fi béréb nag lu mat juróom-ñaari téeméeri at te néewuñ la téere yaa ngi nii loolu ci gox bii la jëkk a li ma la bëgg wax foofu moo di du xam-xam bu bari moom moo ko laloon waaye ay jikko ak i jëflante moo ko laloon kon wootekat su fekkee ne seeni i jëf seen i jëflante nit ñi ci wàllu jikko seen i jëflante ci wàllu pas-pas yu leer nañ seen i jëflante ci wàllu jaamu ko jaamu yàlla yu rafet yu tegu ci sunna won nañ ko nit ñi awaa ñi di leen wax ne lii mooy sunna kooku mooy woote bu gaaw bi waaye kat su fekkee ne woote bi wax ji mën naa rafet ci kaw boo duggee ci biir gis bokkaale gi doon tere nekk ci jeexut des am na yu des jaamu yàlla gi ñu doon koy teg ci sunna boo xoolee gis ay njuuj njaaj ak dugg ak génn ak ay biddaa ki yëf yëfaan bu dee ci wàllu jikko boo duggee ci wàllu alal gis njuuj njaaj am boo lebalee nit ki mu daw du doo ko gis tayeel ñàkk a liggéey njaaxu bi mel noonu di am ci biir cadre ñi nga xam ne dañuy woote wala ñu wuy ci woote bi loolu su amee ña nekk ci bitti duñ gis lu rafet lu leen di woo ngir ñi dugg ci biir diine ci safaan bi mooy am mooy gàllankoor lay doon moo tax kenn ci orientaliste yi muy li ñuy tudde ay mustashriqoon day wax ne gannaaw boo xamee ne moom def na étude jàng ba dugg ci lislaam day wax ne mi ngi sant yàlla gannaaw bi nga xamee ne dafa jàng ba dugg ci lislaam avant muy tukki ci biir réewi jullit yi di leen gis ndax nee na su jëkkoon a dem ci réewi jullit yi jaxasoo ñoom gis lañuy dund nee na danañ ko gàllankoor ba dugg ci lislaam ndax nee na jàng naa ne lislaam dafay araamal jullit bi dig la dara fausé ko maanaam fausé rendez-vous jullit du ko def nee na bi ma ñëwee ci jullit yi gis naa ñu di ko def jàngoon naa ci lislaam ne jullit du fen mu ne bi ma ñëwee ci jullit yi gis naa ñuy fen jàngoon naa ci jullit yi ne ci lislaam ne jullit bi du wax lu mu defut nee na bi ma ñëwee ci jullit gis naa ne ñu ngi wax lu luñ defut mu ne kon mi ngi sant yàlla ndax dafa jàng lislaam ba xam ko door a gis jullit yi waaye su leen jëkkoon a gis kon du ittewoo lislaam kon li wér mooy loolu mu di xam lislaam wàcc ci place ba noppi jëfewoo ko kooku gàllankoor la ci ñi duggagul ci diine ngir ñu dugg ci ñu bare bari ñoo xam ne su lislaam leeroon ci seen bopp wallahi amut sikk sàkk ci ne xoli doomu aadama yépp ay wuy si lislaam waaye jëfi jullit yi ak seen ñaaw ñaaw ci àdduna tey moo ñaawal deru lislaam ba tax koo ko tuddal léegi yeneen xalaat sax lañ lay jox léegi lislaam ñu bare bari ci occidentaux yi boo leen di laaj dañ lay wax ne kooku diine terroriste la dëgg la kooku média bi nga xam ne dafa contre l'islam ak lépp lu ci aju joué nañ ci rôle bu rëy a rëy rëy waaye itam nag jullit yi ci seen jëmmi bopp seen i jëflante ak seen i yëngatu seen i yi ñuy defal seen bopp loolu wane na ko ndax li wér mooy média yi ci àdduna yépp suñu àndoon di wax waaye buñ xoolee gis jullit yi di def leneen loolu kenn du ko mën a gëm ndax nit ñi dofuñu nit ñi dofuñu waaye su fekkee ne li ñuy wax kat boo xoolee gis nag lu koy firndeel ah su boobaa nag luy pexe doo ci mën dara njaaxum lay doon faw jullit yi dellusiwaat ci seen bopp defaruwaat jéem a defar jikko yi jéem a defar jaamu yàlla yi jéem a defar pas-pas yi ngir ñu mën a doon royukaay ci kaw àdduna ndax kat ñoo fi yor diine joo xam ne moom dong moo mën a jiite adduna sunu diine lislaam jeneen jiite diine ju jiite àdduna moom te diine jamono yoo xam ne dem na ba jiitewul jiiteetul àdduna nga xam ne bànneexi bakkan mooy jiite àdduna bu boobaa njaaxum yi ngeen di gis rek ngeen di gis ku man duma rek su boobaa àdduna làmbi bolo lay doon ku man sa morom duma diine nag mooy loo xam ne duñu aajowoo ay liif duñu aajowoo ku nekk sa kasoo ngi la tiim sa liifa ngi la tiim di la nga xam li xam ne soo koy def soo làqu woon baraw it sa borom mi ngi lay gis te la jàpp foo xam ne doo mën a rëcc kii yar yar bu mel noonu moo war a mën a jiite àdduna ngir nit ñi nekk ci jàmm waaye lu dul loolu nit ñi duñu nekk ci jàmm kon ñetteelu tomb bi moo di yi nga xam ne dana ko indi ci lor muy wax ju àndut ak jëf moo di infisaamu shaxsiya personnalité bi jullit bi war a am nga xam ne kenn la war a doon loolu day dem ba ñàkk ko léeg-léeg nga gis ñoo xam ne seen seen melokaan mënoo xam kii ko mu ñum dugg ñu ne rek lañ doon la doon bu ëllëgee bu duggee ci ñuy lee bu duggee fee lee la bu duggee fee lee loolu du melokaanu jullit jullit jullit la mu jeex wenn melokaan woowu moom la yor su feeñeek su nëbboog su tukkeeg su nekkee këram yépp lam gëmoon lay gëm lam doon jëfe lay jëf lam doon waxe lay waxe waaye du wàcc mukk yor wi nga xam ne moom la ko lislaam xàllal kon euh, loolu lu ma ta bàyyi xel la moo di personnalité bi jullit bi war a am nga xam ne dañuy xam ne kii nii la mel melokaan yi la ko lislaam jox mu mel ko jubluwuma rek comportement bi ci bitti waaye ci wàllu jikkoom ak jëflenteem ak pas-pasam ak jaamu yàlla am lépp day dugg ci biir biir personnalité boobu bi ko lislaam xàllal mu melowoo ko su fekkee ne jëfam ak i waxam ànduñu day dem ba personnalité boobu mu ñàkk ko parce que day dem ba doon ko doyadi koo xam ne ñun dugg ñu ne rek day war a toroxlu ci seen kanam ba nuroog ñoom ba jàll bu jàllee ñeneen ñu dajeel nuru leeral ci wax leen ne ah man kat yéen ci yéen laa bokk yéen am solo jiw ak jiw ak jiw nangam ak nangam a ngi ci ñoom bu paasee ñooñu dem na ci ñeneen loolu melokaanu naafeq la waaye du personnalité jullit wa ida laqu alladina amanu qalu amanna wa ida xalaw ila shayatinihim qalu inna maakum innama nahnu mustahziun loolu mooy melokaanu naafeq waaye du melokaanu jullit kooku sax mooy ñeenteelu bi ci wane mbon goo xam ne euh, wax ju àndut ak jëf bon na ko moo di ne melokaani naafiq yi ci la bokk borom bi tabaraka wa taala nee na yaquluuna amanna billahi wa bi rasuli wa ataana thumma yatawalla fariqun minhum min baadi dalika wa ma ulaika bil muminin nee na am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw ne nun day gëm nañ yàlla nun day gëm nañ ab yonentam te it moom la ñuy topp ah bu rafet waaye nee na summa yatawalla fariqun minhum nee na su ko defee am ci seen biir ñoo xam ne dañuy wane gannaaw lànk liñ waxoon ñu bañ koo jëfee nee na ma ulaika bil muminin ñooñu du ñooy ña tax ñuy wax ñoo xam ne dañoo gëm wa ida doo ila allahi wa rasulihi li yaxkuma baynahum ida fariqun minhum moridun buñ ne leen àtte bi yàlla ngi ak àtte bi yonentam alquran a ngi ak sunna nee na ab kuréel taxaw ci ñoom boo xam ne day wane gannaaw kon daal ngir ñu bañ a guddal guddal boo xam ne bu ëpp la buñ dee xool njàngale lislaam danañ gis na yu leer nañ la waaye buñ xoolee jikko jullit yi danañ gis na lu bare bari laaj na defaraat melokaan yi ci bare yi ci bare bari laaj na defaraat li manqué xeet wi dëgg dëgg dëgg du xam-xam waaye li ko manqué dëgg dëgg mooy jëf kan ci nun moo xamul ne jëw araam na li ëpp ci askanu jullit yi xam nañ ne jëw dafa araam waaye lu bari ci askanu jullit yi day bala ñoo am lu leen neex dañoo toog ci béréb di wax di jëw nit ci la ñuy yëge bànneex kon kooku ci mazahiri al infisam bayn al qawli wal amal ci la bokk yow lii xam nga ne dafa araam amoo ci looy werante am nga ci yaqin waaye ba ngay dugg ci biir di ko def doo ko yëg kon kooku pexe seytaane la ñàkk yar bakkan itam ci la ak ñàkk dimbalante ñàkk dimbalante ndax su fekkoon dimbalante am na ci itam buntu jëw boobu mën naa gàtt nit dikk na taxaw di wax ah diw sàngam day nangam ak nangam ak nangam am na ci moom li muy njëkk a def mooy xool ndax li muy wax jëw la wala xeetu laa biire la ndax léeg-léeg laa biire nit day nuroo ak jëw ki ñëw di la laaj ah waaw soxna sàngam day ci tudd nàngam di doomi diw nun day dañ ko bëggoon soxna yow nag sa soxna ñooñu seeni xarit lañ wax ko mu laajal ma ba xam wala moom ci boppam su xamee na wax lim xam ci jikkoy kooku kooku wax la lim xam ci jikkoy soxna soose wala bu dee ku jigéen ci mu wax lim xam ci jikkoy góor gi kooku du jëw kooku laa biiri la <coughs> waaye soo seetloo ba mu leer la ne lii du laa biiri waaye jëw la la doon waru garu jullit ngir mu dimbalanteeg mbokk jullitam mooy bu mu ubbi bunt bi su ne ko diwun sàngam diw rek mu xam ne buntu jëw lañ ubbi mu ne ko ah, diw day man lu baax rek laa xam ci mu jeex tëj buntu ba su dee xabaar bu mu ko jox ci moom diw nee na la nàngam la doon doxaliinu saxaaba yi mooy jóg ànd ak moom ne ko nan dem ca moom ndax kat lii mu ma wax rëy na su fekkee wér na ne maa ko def ma tuubal yàlla ndax loolu mu bañ ko defati ëllëg su fekkee da koo wax nag te defuma ko nga laajee ko biir ndax mu bañ a waxati lu mel noonu jàpp ci loxoom ne ko nan dem kon rambaaj ak yàqkat su fekkoon ne lu mel noonu moo am ci diggante jullit yi ku dem bay bëgg a wax ci nit te toog ci keneen dana xalaat ah waaw kii moom ku fi tudd nit kët yaa ngi dugal sa bopp ndax sooy wax rek muy woo kooka wala mu naan lañ dem ca moom kon bunt boobu lu ci bare bari suñ dimbalante woon lu ci bari dana sakk ñu baree bari mën nañuy digle lu baax masalan suñ ci jëloon misaal defe naa ne amul benn jullit ci nun boo xam ne mi ngi nattable ne xiyaamul layl tëdd ba guddi nga jóg ngir yàlla ci waxtu wu tedd jàpp njàpp mu sel julli ñaan sa borom defe naa noonu ñëpp xam nañ ne loolu lu baax la noo koy jàngale itam waaye ñan ci nun noo jéem a yar suñ bopp ba mën a saxoo doonte ñaari rakkaa sax suñ tëddee ba lu jiitu fajar nu mën a yeewu julli ñaari ràkkaa yooyu tàllal suñu borom loxo ñaan ci waxtu woo xam ne jullit yi liñ gën a aajowoo mooy ñaan ndax borom bi tabaraka wa taala sax na ne ci xadis sulusu leylil axir ceer bi mujj ci guddi gi su jotee borom bi tabaraka wa taala yanzilu ila samaai dunia day wàcc ba ci asamaan si gën a jege suuf si di wax ne kan moo may ñaan ba ma may ko kan moo may jéggalu ba ma jéggal ko kan moo may xettali ko ngir ma xettali ko su fekkee lu mel nii dana am jullit bi bis bu nekk nag wa dalika kulla layla la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax su fekkee guddi gu nekk looloo ngi am jullit bi di nelaw rek loolu di ko faat loolu ba kañ wallahi su fekkoon ne am na jëmm joo xam ne dañ ne ah diw day borom xaalis bu bari la yoor yoor bu nekk daal bu dix heures jotee am na mbedd mu muy taxaw fii ci Tëngéej dana fa am fukki minutes képp yoo xam ne day wax ku soxla junni na ma wax ku soxla ñaari junni na ma wax ku soxla juróomi téeméer na ma wax waa jooju defe naa bu ko defee ñaari fan ba ko ñetteelu waa ndakaaru gépp danañ dajaloo tëngéej di ko nit te loolu alali àdduna la su fekkee ni borom bi nga xam ne moo bind bindeef yi moom ci jëmmi boppam mooy toog bay wax ne kan moo may jéggulu ci waxtu wii ngir ma jéggal ko kan moo may ñaan ci waxtu wii ngir ma may ko kan moo may xettaliku ci waxtu wii ngir ma xettali ko jullit yi di nelaw di bàyyi waxtu woowu rek muy dem kooku ana jëf ci waxtu woo xam ne liñ gën a soxla woo dëgg dëgg mooy ñaan ndax léeg-léeg fitna wàcc ci jullit yi ba yóbbee leen ngëlamte léeg-léeg gis ngëlamte yoo xam ne lu nekk jullit danañ ko xalaat parce que problème yi bëgg am léeg-léeg jullit yi dañuy wax ne kaay leen nu dajaloo ngir def ay ay marche ngir naqarlu dara waaw dara jii di am ak lu mën a doon su fekkee wér na ne nangam luy wàcc jullit yi sa ànd ak lor ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam daanañ jóg àndandoo rek doon mbooloo muy dox ngir di uh, rungoo rek di dem ngir wax ne nangam la leen a naqari wala ndax seeni naqar daawuñu ko jéem a faj wallahi jullit yi buñ dajaloo ci waxtu yi nga xam ne ñi gën a sell ci ñoom seet waxtu yi gën a sell yi borom bi tabaraka wa taala dige ñi tàllal foofu seeni loxo ñaan borom bi tabaraka wa taala amut luy wàcc ci kaw suuf si luñ mënta dindi kon loolu faaw jullit yi gëm asalafu saaleh foofu lañ rawe woon nit ñi alxasan ibnu sabah pour wan la rek ñoom liñ doon dund ci qiyaamu layl boobu rek nga xam ne benn tomb alxasan ibnu saalex ci salafu saalex la bokk dafa yor benn soxna këram koo xam ne kum moom la ab jaam yor jaam bi ba mu yàgg am ku ñëw fay ko ci alal ju bari mu jaay ko ko mu dem ñu yóbbu jaam bi seen kër biñ demee ba sulusu laylal axiir jot maanaam dem nañ ba guddi gi màggat na comme ni ko wolof yi waxee fekk fajar jotagul mu jóg di fëgg seen i bunt di leen yee jóg leen jóg leen jóg leen bunt bu mu fëgg rek kooku ne ko fajar daa jot mu ne ah déedéet jotagul de mu jàll ci beneen bunt kooku ne ko fajar daa jot mu ne déedéet ñoom ñëpp ñu tëddaat mu def ay julleem ba asamaan set mu xëy dellu ci ki ko jaayoon ne ko yow xasan ñi nga ma jaay de nit ñu baaxut lañ ndax kat fa fajar dong la ñuy julli waxtu fajar képp mooy jot ñu yeewu jullit yi waaye duñ jóg lu jiitu fajar kon delloosi na mu daal di dellu xàcc jaam boobu delloosi ko këram ngir mu mën a dund lim doon dund ci biir këram ana loolu kon jamono yoo xam ne taxawati nan di déclarer suñ bopp léegi la nga dégg ñoo xam ne ci seen i làmm yi dañuy wax nun day ci manhaju salaf lan nekk nun day ahlu sunna lan nun day alquran ak sunna ak sunna ci la ñuy woote loolu nan fexe ba bu mu yem ci sun làmmiñ yi nañ xool as-salafu saalih liñ doon dund nag nga xam ne loolu lañ rawe woon keneen ku ñoom li taxoon ñu mën a dem ba àgg ci ku tàllal say loxo di ñaan bala ngaa àggal borom bi tabaraka wa taala nangu sa ñaan loolu loolu du neen noonu rek du yàlla da leen a tànnoon ne leen yéen a gën nit ñi parce que yéenay sëti kii wala yéenay doomi kii waaye ngir ay jëf yu ñu doon jëfe la woon kon faaw loolu ñu bàyyi ko xel faaw ñu bàyyi ko xel faaw ñu del si waat bu dul woon waxtu wu xat wi am na foofu ay nett li yu am solo yoo xam ne euh, ci gàttal ko al imam Muhammad ibnul Munkadir euh, mu bokk ci rijaalul Buxaari ak Muslim doonoon koo xam ne Jaabir ibn Abdullahi di ab saxaabi yi ci keppaaram la yaroo Muhammad ibnul Munkadir imaam la woon ci Madina ci ay jamonoom ci taabi'un yu mag yi la bokk nee na ñu dem at bekkoor gu metti am nit ñi di def salaatul istisqa mooy li ñu tudde jullik mbaaw naan mbaaw naan nag ci lislaam bokkut ak góor ñi sol yëri jigéen jigéen ñi sol yëri góor ñu jaxasoo di tëgg di def loolu yëf yi caddo la waaye mbaaw naan ci lislaam mooy julli nee na nit ñi julli taxul mu taw mu teg ne ala ghayril aada nee na nag loolu wuute nag la daan am nee na benn bis ma dugg ci jàkka yonent bi mooy imaam ji day teel dugg si nee bi ma duggee ma gis ci gannaaw benn kenu nit koo xam ne ku ñuul la ma gis ko taxaw ci gannaawam te yëguma nee na ma gis ko mu julli ñaari rakka jóg tàllal ay loxoom di ñaan yow yàlla de ñaan yu gudd gudd la jaam yi say jaam lañ amuñu keneen ku dul yow soo wàccewul sa ndox mi danañ loru jur gaa ngi loru nee di ñaan di ñaan ba mu yàgg ma dégg yëngu yi ci asamaan si nee na taw bi tàmbali di wàcc di wala ngaan bi mu daataan wàcce ay loxoom moom jëmm jooju nee na bi mu ko defee ma jaare nële dikk waxtu julli jot nit ñi dugg si ñu julli génn nee na ma ne waa ji danaa jéem a xam kan la ngir wan la rek ñooñu seenu xel itam nag maanaam doonuñu ñoo xam ne dañu yor mbaax tax ñu wër naan maa baax nee na ma génn bëgg koo topp ba xam kana nee na dëkk bi yëpp am ndox la léegi nee na ma génn man di xool fan laay mën a jaar ak yu mel noonu nee na ma séen ko mu xuus rek moom ci biir ndox mi dem faalewu ko sax nee ma jéem ko topp mu raw ma xaw ma ku mu doon nee na ci ëllëg sa ma bàyyi ko xel gis ko bi mu dikkee ñëw julli def ay ñaanam mu génn ma topp ko tey comme que am ndox amul ma topp ko ba mu dugg ca kër gëm dugg nee ma ne ah kon fii la dëkk dellu sama kër ba yoor yoor jot ma ñëw nuyoo nee na bi ma nuyoo fekk ko mu nekk ci ëtt bi ndeke gan la gu fa wàcc goo xam ne ab uude la na tiim dàll ya di ëw di defaral nit ñi seen i dàll nee na bi ma dugg see rek mu wadd song ma imaam ah yow boo soxla woo defari dàll kay da nga ma ko war a wax man ma jël si la say dàll defaral la kay waaye waroo dox ñëwal sa bopp ba agsi fii nee na ma ne ko déedéet defar lu may dàll damaa bëgg waxtaan ak yow nee na mu ne ma ci lan nee na ma nettali ko li ma gis démb nee na nett bi ma daataan àggal dafa mer dafa mer ba mer mi feeñ ci kanamam nee na mu ne ma ba ci yow sax ba ci yow sax nag xatta anta maanaam kenn muccul daal ci jay doomu aadama yi ba ci yow sax àgg nga ci di jay doomu aadama yi di yàq seen i jëf nee daal di mer mer mu méttee métti nee na ma daal bi ma gisee mu mer ma bàyyi ko fa dem nee na bi ma demee ba ngoon daal ma ko mer mi ma ko merloo mu metti ma ma ne naa dem jéggalu ji ko mais ma ñëw nuyoo ca kër ga salaamaaleykum waaleykum salaam ana gan gi fi nekkoon day ëw nee ñu ne ah kooku de yow bi nga fi ñëwee tey xaw ma loo wax ak moom waaye metti na ko ba da génn rek mu boole ay bagaasam dem xamuñu fu jëm dangaa génn rek mu boole ay bagaasam dem yoon kon xoolal xoolal jaami yàlla yooyu nga xam ne àgg nañ ci buñ tàllalee seeni loxo borom bi tabaraka wa taala nangu seen ñaan xoolal nit ñi nëbbe seen jëf kooku su doon nitu suñ jamonoy tey bu tàllalee loxoom di ñaan asamaan si gi day continuer tàllal ba nit ñi ñëw fekk ko ba ndax ñu xam ne moo doon ñaan moo doon ñaan ba taw bi wàcc waxuma la loolu waaye bu ci ëllëg saa bu kii ñëwee di ko seet si ne ko dama laa gis ngay ñaan téem bu leen ko ca tegu mooy ah waaw man de léeg-léeg suñuy ñaan moom borom bi tabaraka wa taala dana ko di nangu kooku defe naa du toog ba mu yàgg muy publicité di wax ne léegi nun noo ngi ci ruq sàngam ak ruq sàngam ku am jàngoro sàngam wala ko am nangam boo dikkee nu defal la nangam boo dikkee ñu defal la nangam kon mbir yi ci jëmmi bopp ci jëmmi boppam faaw nu dellusiwaat nag xoolaat suñ bopp nun ñii nag ak suñ wax ju bari ji nooy ñan suñ pas-pas yi mooy yan suñ jaamu yàlla yi fu ñu ko teg sunu jikko yi mooy yan suñ jëflante suñ digganteeg suñ borom ci wàllu jaamu yàlla ndax noo ngi def li nu war wala déet diggante yooyu suñ ko defaree danañ mën a won ci suñ jëf nit ñi lislaam joo ne ju rafet la joo xam ne mën nga leen ko won te du ànd ak wax koo dëkkal rek dana mën a roy ci yow xeeti jikko yoo xam ne da nga ko woo doo yor saw làmmiñ waaye lu metti la lu metti ci xol la nit ñoo xam ne ñooy askano sunna moo xam ay jullit yu góor lañ wala jullit yu jigéen am ay dëkkandoo yoo xam ne ñoom askanoo wuñ loolu ñuy askanoo ñoom te nan koy waxee te bés bu nekk ñoom ñooñee ñu àndandoo ñëw di leen lijjanti si yéen ngeen di xuloo di mbiccoo di mbàlloo ñu naan diw ak soxnaam sa di kooku ibaadu la waaye ñoom de xuloo nañ dëkki guddi bëccëg ñi ñëw di àtte si ñoom ñi nga xam ne ay jàmm kooku musiba la musiba la lay safaan ba kay mooy kay askanoo sunna su fekkee ku dëggu la ci li muy wax koñ ba mu dëkk moo fa war a doon koo xam ne lu lëj ñu ne ah dem leen seeti diw kooku kat bu fi dara lijjanti ko mooma waaye su fekkee moom mooy lëj ba nit ñi dañuy ñëw di ko lijjanti si kooku addunaa ngi tukki loolu war te continuer faaw ñu jël si waat seetaat suñ bopp seet jikko yi kon daal bu ñu xooloon continuer ci lu mel noonu danañ gis ne lu bare bare bari la waaye ngir ñu bañ a guddal kon euh, wax dëgg yàlla euh, bëgguñu nee na téye lu gën a yàgg lii di ñaan xanoo <coughs> ñaan borom bi tabaraka mu boole ñu tawfiq musal ñu ci seytaane saxal ñu ci diine ci pas-pas ak ci jëf ak ci jikko surtout yooyu noonu ci gën a insisté bu baax a baax a baax a gën a bàyyiwaat xel jikko yi ak jëflante yi gën a bàyyi xel jaamu yàlla yi rawatina ci guddi yi loolu lu mat bàyyi xel la yàlla nu borom bi tabaraka wa taala baaxe ba yooyu yëpp ñu mën koo taxawee wala ñu mën cee taxaw suñ kam kàttan dadi nag yooyu doonut loo xam ne nit ki day tëb tëb rek daal di koy mën a def mu continue ndax bakkan dafa dëgër bopp da nga koy yar ndànk ndànk yan ko tuuti fexe ba man ko fexeel ba guddi gu rek nga mën a julli ñaari rakkaat fexe ba yan ko loolu yan ko loolu bu yàggee rek mu mën a yokk dara fexeel ba koor gi rek ah weer wu ne nga mën a war ñetti fan ay yaamul biir bu yàggee rek nga mën sa yokkaat leneen bu yàggee nga mën sa yokkaat leneen noonu la jullit di doxee ndànk-ndànk di yar bakkanam ba àgg ci mu mel melokaan li nga xam ne moom la yàlla bëgg ci moom yàlla nañu ko borom bi tabaraka wa taala defal sa saxal nu ci loolu ba ba nuy dajeeg moom musal na ci seytaane mu iblis ak ci soldaaram ak képp koo xam ne ku koy taxawal ci kaw suuf la wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad li ñuy jëkk a xam ñoo di moo di xabru ak jàkka moom waruñoo waruñoo daje ci béréb xabru war ko fekk si jàkka jàkka war ko fekk si xabru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo tere mi ngi wax ne laana allahu alyahuda wa nasara ittaxadu qubura anbiyaihim masajid wa fi riwaaya <coughs> ci beneen riwaaya bi ittaxadu qubura anbiyaihim wa salihihim masajid yàlla rëbb na nee na yahud yi ak nasaraan yi ndax dañuy fekk seeni xabru ñu def ko ay jullikaay xadis bi bi ci des jarir mi ngi wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qabla an yamuuta bi xamsin lu jiitu muy génn àdduna ci juróomi fan mi ngi baamtu xadis boobu di wax ca mujj mu ne ala fala tattaxidu qubura masajid fa inni anhaakum an dalik lu jiitu muy génn muy génn àdduna moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci juróomi fan daf doon fàttaliwaat jullit yi mbir moomu di leen wax bu leen def xabru mu nekk jàkka loolu day tere naa leen ko moo tax hadis boobu ñuy wax ne bu am qiima la ndax hadis boo xam ne bi ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax jiitu na juróomi fan képp ci àdduna ci ci gundam ci àdduna juróomi fan la fi amaat day wane ne boobu xadis moom beneen xadis ñëwul forli ko moxkam la li ñu tuddee moxkam ñaareel ba day wane ne lim leen di jàngal moo di gannaaw boo xam ne jàngal na leen yar leen wan leen lépp ci lislaam mbir jege na moo xam ne mu rëy la moo di moom ci boppam kat mi ngi bëgg a am xabru ginnaaw mi ngi bëgg a am xabru war na leen a bàyyeeg leer nañ moo tax mu tegtal leen ci ne fa inni anhaakum an dalik loolu maa ngi leen koy tere loolu mooy atteb sharia bi mooy xabroog jàkka waruñu fekkente mu des nag su fekkee jullit yi def nañ njuumte ba loolu am borom xam-xam yi dañuy wax ne benn xabru bi dana doon xabru bu ne fàng wala mu doon boo xam ne dara da koo wër su fekkee dara da koo wër maanaam boo ci jullee du def direct am na miir bu dox sa digganteeg moom dañu wax ne loolu kon lu ñuy sib lay doon moom julli gi su fekkee am nga feneen foo jullee foo xam ne xabru nekku waaye nag soo amul feneen foo jullee da ngay ñëw julli ci jàkka jooju donte dañ koo sib donte da fi ngay julli sax jublu na fa féete xabru ba waaye miir a nga fa ñu ne sib ga dana gën a woyof su fekkee ne fa ngay jullee moom jubluwoo jubluwoo fa xabru ba féete kon dana rafet ci jullit bi dugg ci jàkka joo xam ne xabroo nga ko mu bëgg a julli mu tànn wet goo xam ne fa muy jublu ci xiblaam du jàkkaarloo ak xabru ba su boobaa sibeel bu woyof woyof lay doon ànd ak ni dugal gi ci armeel bi ci ci jàkka ji wala indi jàkka ji ci xabru bi ñaari yooyu yëpp dañ koo tere léeg-léeg nga dégg ku ne ah waaw xabru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn lay tontu la moo di loolu du jëfi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle wu ko santaane bañ koy denc it ko dencoon bu woon ab xabru waaye kër la woon moom moo wax ne ab yonent fu mu faatoo lañ koy suul yàlla dogal mu génn àdduna fekk mi ngi nekk ci néeg soxnaam ummul muminin Aïcha radiallahu taala anha kon fa mu a àdduna foofu lañ ko suul mu doon ci biir këram këram ku nekk xam na ne loon ci biir jàkka ji waaye dafa sosaloo ak jàkka kër gi buñ ko ubbee ci biir jàkka ji lay ubbi noonu la kër gi demee woon waaye teewul ci jamonoy saxaaba yépp noonu la mbir ma demee xabru bi nekkul ci biir jàkka ji ba ci jamonoy benn buur ci banu umayya ku ñuy wax abdul malik ibnu marwan ci atum soixante cinq juróom benn fukk ak juróom ci gàddaay bi fekk Omar ibn Abdul Aziz moo nekkoon gouverneur am ca Madina mu yónnee ko ndigal ne ko yokkal jàkka ji te dugal xabru bi ci biir Omar dajale borom xam-xami Madina ne leen ah amirul muminin kat nee na naa yàq yokk jàkka ji naa dugal xabru yonent bi ci biir borom xam-xami Madina yépp ñu dëppoo ci ne loolu dëgganut jaaduwut kenn waru koo def mu bindaat delloo Omar ne ko borom xam-xam yi d'accorduñ ci de delloo Abdul mu ne ko defal li ma la kon nga xam ne kooku jëfi nguur la waaye du jëfi xam-xam njuumte nag duñ ko def dalil ngir mën a defaat yeneen yi njuumte dalilu sharia la ñuy jël def ko dalil ngir mën a indi yeneen ngir mën koo tegtaloo waaye njuumte kenn du ko dalil kon kooku benn njuumte ci njuumte yi amoon la mu ni yokk gi ñu yokk jàkka ji ba mu ñëw ci bi ànd ak ne fexe nañ ba defe ko noo xam ne ci suñ jamonoy tey julli jublu xabru ba lu jafe-jafe la ñaareel bi fexe nañ ba sakk ko ci anam goo xam ne ku sa daa àggoon ci di tawaaf ak xabru sax boo fa àggee doo am boo tawaaf maanaam amul fu ñuy wër li nga mën daal mooy ñëw taxaw nuyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci moom boo noppeet la ngay man mooy booy ñaan jublu xibla ñaan julli sa ñaari rakka dem saw yoon boo bëggoon a def leneen borom bi tabaraka wa taala tàggat na ay jaam yu mu fa teg yoo xam ne dañu la ko tere tere goo xam ne bu àggoon ci sax jëflanteeg yow danañ jëflanteeg yow kon nag euh, mën nañu wax ne munkar mi ñuy bañ ba léegi ba léegi amagu fa wala alhamdulilah li ñu faral di dénk mbokk yi mooy fu ay mbokk nekk di gën góor góorgóorlu ci diine na góorgóorlu nga jëm ci jàng na jëm ci jàng dëgg la conférence yi ak waxtaan yu mel nii ñàkkut solo am na njariñ waaye du mooy lépp de du lépp de la am njariñ di dëgëral nit ki di ko jëmale kanam ci lislaamam mooy jàng diine ji fukk ay nit nekk nañ fexe ba am ab jàngalekat bu leen di jàngal ñuy xam ñoom itam juuyoo googu nag li am solo mooy xam ban place lañ ko war a teg ndax juuyoo ay xeet la am na juuyoo koo xam ne kii dafa ñëw wax benn wax kee ñëw wax beneen wax waaye ñaari wax yépp boo leen seetloo fekk ne dëgg lañ kon yooyu benn bu ci ne dafa mën a nekk loolu la borom xam-xam yi ñu tuddee xila tanawwu kooku du juuyoo maanaam boo ñëwoon ci taaya tey ñu tuddee tashahud ci julli ay façon yu bari la am su bii borom xam-xam ñëwoon jàngale tashahudu tashahudu Abdullah ibn Mas'ud kee dem kay jàngale tashahudu Ali ibn Abi Talib kee jàngale bee yooyu ñu waaye du ak juuyoo boo xam ne dañuy weddente xaw ñu xam ne juuyoo beneen bi ci des mooy ñaari juuyoo yoo xam ne mënuñoo ànd maanaam contradiction moo am seen diggante su boobaa it li wér mooy faw benn ca wér ba ca des la mën a demee ginnaaw ñoom ñaar bii day saxal bii di weddi benn ca wér ba ca des wérul kon ni ñuy def mooy déglu wax bi lan mooy dalilam fan la tegu ndax dañ koo teg ci xadis wala dañ koo teg ci alquran su tegu ci xadis ak alquran alhamdulilah kooku wér na su ci teguwul ñu xam ne boobu wérul kon dana jaaru ci borom xam-xam bi jàngale wala muy wax li muy wax mu koy teg ci xadis wala mu koy teg ci alquran waaye li mu bëgg a wax foofu moo di ñu xàmmee ne du caagi ni gépp juwo moo war a indi noonoo loolu ma ta bàyyi xel la li ñuy tudde al fiqh al islam muy fiq ci lislaam juuyoo mosu ce ñàkk am da am ci jamonoy saxaaba yi te it nag noonu lay continuer kenn mënta góorgóorlu ba ñu nekk ci kaw suuf ñëpp di wax ci sharia ñu bokk di wax benn wax waaye juuyoo yooyu su fekkee dañ ko teg ci kenn ku ne mi ngi góorgóorlu di gëstu bi jiim a am dalil kee jéem naa farlu fii la xam-xamam yam mu jël lee ke ci des jéem naa farlu xam-xamam yam fale mu jëm lale mu jël loola yaraange waru ci kenn ndax kenn ku nekk def nga li la war waaye nag ku ci dox ba mu leer la ne lii moo dëppoog alxuraan ak sunna dana jaadu ci yow dana war ci yow nga bàyyi la nga nekkoon ñëw ci li alquran ak sunna wax loolu rek la xeet bi mas di dund naka jekk moo tax ñaar ñu mas a juyoo dañuy ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ah mu wax leen li nga xam ne moom mooy li su ko defee ka ca ci dëgg ka ca des daan di koy fekk si doo am benn garab su fekkee ne ñoom ñaar ñëpp nekk ci dëgg kenn ku nekk xam ne ci dëgg nga nekk te loolu da ci jamono yonente bi ko def xam ne pour noonoo moo koy andi ndax nekk bunt noonoo moom am ndax juyoo gi ci fiq faaw mu am bu ngeen gisee ay ngir am ay madahib am ñu naan la li mooy njërum Abu Hanifa li mooy njërum Malik li mooy njërum Ahmad ibn Hanbal li mooy njërum Muhammad ibn Idris Shafii ngir yooyu pour wute ci fiq moo ko waral teewul ñoom ñëpp ay jullit lañ ñoom ñëpp ñu baax lañ yow jullit bi jóg di gëstu fexeel mel ni ngir mu nekk nga xam la ca gën a dëppoo sunna nga jéem koo jël ngir jéem koo jëfe loolu mooy doxalinu euh, jóg ci biir fiq ci lislaam fekkee la lu wér la donte jëfewu ko it loolu moom na ko mënu ko bañ a jàngale ginnaaw laaj nañ ko ci laaj si dafa def li ko boromam digal